noo ngi leen di dénk lii nga xam ne sëriñ ba Basiru da koo wax ci kanam sëriñ bi ma bëgg yéen waa dëkk bi kenn ku ne jëmbal ci sa fulla jëmbal ci sa fayda bañ déglu ma sàmb bañ a déglu ma demb li ma leen di wax itam mooy nañ ko defee woon daaw na ngeen buub seen kër yi ba mu set wecc toppatoo kër yi ba mu set toppatoo mbedd yi ba mu set toog fa nag ah boroom kër bu mën a jàng alxuraan ngay jàng alxuraan bu mën a jàng xasida nga di ko def koo mënul ngay jàng ñeent fukki xulwa ak euh, yu sell yónnee ko borom daaru mooti ak njabootam gam fa nekkal loolu mooy jëkk leneen la ca dolliku nag ah, faw dana am ñu ñëw ci yéen waaye dajaloo bi dañ ko wattandiku ak xumbeen yi soxlawuñ ci aw xumbeen soxlawuñu dajaloo soxlawuñu dara buñ ko soxla woon dañuy def CLD def CDD def CRD yebal ki nga xam ne mooy porte parole bi mu dem ca gouvernement ba wax ak ñoom waaye loolu lépp dañ ko daan def waaye mbir mu ne nag mbir ma ko ëpp doole bu dikkee dañ koy teg fi suuf leneen la ca dolliku nag danu nu def raafal nag nun nun waa dëkk bi danu def raafal ma commandant brigade bi ak sous préfet bi ndax bari na fi fi dugg lool te awutu yoon waaw dana sant brigade bi it wóotewun dara waaye nag faw am na ñoo xam ne dañoo dëgër bopp ak ñoo xam ne ñii duñu dégg dëkku ñu ci dëkk bi sax feneen la ñuy jóge kenn ku ne defal ko ci sa biir kër yemale ko ci sa biir kër yàgg sa waa kër waaw amul dajaloo amul dem ci penc mi amul baas amul dara waaw sëñ bennu dàq baas sob bu laajoon fukki tribune ñu di tribune yi waaw waaye ndigal loolee ko sëñ mun Muntaxa jox nag mu wéyal ndigal loolu mu joxaanu nu ndigal li nun noo ne mu wéyal ndigal sëñ Muntaxa ne nu war a wéyee ndigalam